salaamaaleykum les amis chaque leen bu baat di leen wax ngeen dal jàmm Sport 221 bëccëg bu njëkk ci Ligue des champions bi kon jeexal nañ ko Dinamo de Zagreb moo daan Chelsea de Edouard Mendy bi ma nga woon ca banc ba Koulibaly mi nga woon ci défense ba 1 à 0 lañ leen daan Dortmund daan Copenhague de Babacar Rahma 3 buts 0 Benfica daan ñaar ci dara avec la titularisation d'Abdoulaye Seck le défenseur sénégalais bi nga xam na ay bi ekk ci wàllum Ligue des champions pour une première na ba 62e minute laata muy seede place am les champions tchadiens mooy les merengues ñoo fekk ji waa Celtic Glasgow daan la ñett ci dara grâce à un bi nga xam ne jàpp nañu kat du wane lu mucc moom mi nga xam ne mooy Eden Hazard assuré ci wóolu ko kat mu remplacé ki nga xam ne mooy Benzema dafa amee gaañu gaañ ca zone ba mu dugg voilà changé li nga xam ne mooy fusion bi di match bi. impliqué wu ci bii bu Vinicius bi dugal deuxième bii bi def pas di ci ki nga xam ne la Croate-Benn mooy Modric gannaaw nga jiwante ba moom lañ tabb homme du match de quoi donner confiance à l'international belge bi nga xam ne mooy Hazard bi nga xam ne temps de jeu bi muccul ayib lool c'est les merengues le club d'Abdou Lahad jàll bi nga xam ne moom mooy live si ñoom nag dañ leen fekk seen dëkk Sankhadounès moo fa jaar daan leen ñeenti bal ci benn naam dëkk benn mooy Ukraine ñu ngi cee jafe-jafe lool mais taxul kat doomu ukrainien ñu wane seen bopp moom mi ngeen mooy Abdou Lahad Diallo kat jàppul leen kat statistique li wane mooy kat def na match bu correct lool naam kat voilà infligé nañu score bu loddu club bi nga mooy Paris Saint-Germain ñoom ñoo dalal waa Juventus daan leen ñaar ci benn grâce à doublé de Mbappé bi nga xam ne bii mooy 35e biyom ci Champions League bi Salzbourg dafa timbu ak Milan benn ci benn club bi nga xam ne mooy les Citizens dañoo leen fekk seen dëkk de la ñeent ci dara grâce à double de Erling Haaland bi nga xam ne ngi wane boppam bu baax jàpp leen kat moom mooy le premier jour ci li nga xam ne mooy yu des Champions yi mu dugal 25 buts lors de ses 20 premiers matchs et que cette saison avec les Citizens 7 matchs la jogante dugal 12 buts mën une véritable machine à but pour l'international norvégien. ginnaaw gi seen ndam bi nga am nañ ko ci tournoi bi fois bi mu doon jeexal ñeenteelu bëccëg bi les hommes de Mali daf ñoo daan 1 but à 0 kon loolu dina tax ñu jël première place ci li nga xam ne mooy groupe B bi avec 10 points kon ñoom dem nañ demi finale dinañ daje contre les Mourabitoun bi nga aussi voilà qualifié demi finale dina doon vendredi 9 septembre à partir de 20h30 pour une place en finale. consultant fecce Sky Italia bi mooy Fabio Capello kon moom mi ngi ñëw ci défenseur sénégalais bi kat mi nga xam ne moom dafa war a adapté wu au jeu rapide voilà fecce Angleterre. ndax lii kat fu balam na fu mu toll voilà le jeu va tellement rapide ba tax na moom kat moom mi ngi conseillé kenn mooy Koulibaly kat mu adapté wu ci jeu rapide bu Angleterre bi ndax kat ndoorteel bi am na jafe-jafe bu ñu soxla di ci kenn mooy Fabio Capello. mais nag mën nañ yokku ne di lu xew rek ñu ne capitaine Kalidou Koulibaly ndax ku ko xam-xam ne benn défenseur de classe mondiale la équipe bu Chelsea bi nañ ko wax te mooy que seen milieu bi kat voilà doxul ba tax moom mel mooy Koulibaly mu ngi gisee bi bi nga jël nañ ko ci bëccëg bu njëkk ci des champion bi dafa monté def marquage alors que c'était le rôle des milieux de terrain bi dañoo monté lu ëpp lool ba tax na nga xam kat erreur bu amee kat c'est toute l'équipe encore les chemins de l'équipe nationale du Sénégal et ceux de Carlos Queiroz Vara se recroiseront dans mon mi le technicien portugais moom mooy diriger équipe bien moi ira bien dina amal match amical le 27 septembre contre les champions d'Afrique. ñu avons ko xibaar bi nga xam ne l'observateur moo ñu ko baaxee mi nga ne nag jour bu ci mën ne Paris il est le mooy ko ñu boole ko ci li si jour yi war a convoqué suñu match xaritooy ndax moom mi ngi doxal di wane boppam bu baax ci ndorteelu saison club mooy Rayo Vallecano et que depuis des années il est toujours régulier moom mi nga mooy le milieu terrain défensif bi. et que ñi nga xam ne nag voilà dinañ leen zappé moom mooy Famar Diédhiou bi nga xam ne il vient de reprendre fraîchement leen mooy wàllum entraînement individuel yi ku ci mën Abdoulaye Seck moom comme ni nga xam signé bees la feecca màkk bi ay fan naam démarré la mooy ndorteel bi ci Ligue des champions bi ba tax na la quotidien observateur mi nga xam ne nag ñaar ñooñee kat voilà duñ leen boole ci li nga xam ne mooy li si jour yi war a jongante ci match xaritoo yi mais la ca topp nag mooy jour yi nga xam ne xam nañ bu baax Aliou Cissé ne change pas une équipe qui gagne ossature des champions d'Afrique la ñuy convoqué waat naam ñenn ñi amuñu temps de jeu bu mucc mais moom kat loolu du ko empêché mu woowaat leen ñu ñëw doxal ci li nga xam ne mooy wàccaay bu jëm ci mondial 2022 fee ca Qatar bi kon di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal jàmm di leen jox dig daje sur sport 221